ko ko xañ doole këri suuf nekk ci métier am art bi coordonneur bi waaw maa ngi sama rakk yi toog muy Daouda Thiam ak Libaas ya ñaanal yalla loxo yi gëna set gëna wër di delu tamit di ñaanal sama yaay ji wacc jeudi bi passé yalla na xippé àjjanay firdaws di la sante yow tamit rak ya mi def dérangement ak déplacement ci naaj bi tang bi métier mi fi ma ko jàngé moy doon xalé opté ko muy métier bu ma neex bima neexé sama yaay ma nek teungé ji jank fa jaké tuglor pont dangu bi nekk foofu si métier mi bi ma si nekkee tamit sama mère tey gën na àdduna mi ngi si dëgg keroog bañ koy jullee si jumaa ji maa ngi toog di ko di ko témoin si jumaa ji daan ma forcé di ma jox paas boobu fukk ak juróom benn la may paas di dem Tëngéej di wàcce ko ñëw su ma demee daanaa fàttaliku naa ma bu ma demee bay découragé bay toog mu ne ma njéem demal nga liggéey lii incap du dara natt bu yàlla wàcce si yow tegla ko xëy na mooy li gën sa dund da yaag say rakk ñëpp a ngi fi te kenn amu si nattu xëy na yow yàlla yow mi mu teg lii mooy li gën si yow sa dund kan bul découragé demal yaa fuus baaxul comme que yàlla suñu borom mi ngi la bàyyi sam xel dama nga jàngi métier ngoom mu ma si mu ma si forcé di ma si poussé di ma si poussé ba ma egsi fii waaw ginnaaw yàlla moom lépp mooma ba mu wuy ju boroomam yàlla di ko toog di ko ñaanal ginnaaw yàlla ak yonent bi ak lépp mooma lépp mooma la daal si métier mi ba tey ma agsi fii ma egsi waaw yàlla na xippe àjjana firdaws si barke alxuraanul karim boobu metti na ndax jafe-jafe yooyu boobu damay xëy tëngee di dama ko ñëw bu ma xëyee maire bi jox ma cent franc ma paas dem bu ma ñëwee sama patron may ma jox ma passe ma ñibbi si tamit euh, sama ndey encourager ma bëgg métier mi metti won na torom nag Ousmane sama physique may wax di dem Tëngéej di wàcc di ñibbi si metti won sama physique waye sama croise ak sama jom ak bëgg ko ak ma xam ne du dara lu wara nek ci man dal ci man la ma nungu loolu gëm loolu sama ndey encourager ma jàppale ma ci ba ma egsi ma exi daanaa liggéey tënge événement jot barki alxuraanul karim gaa yëpp wàcci ñu tëj ma si atelier bi ba jouru korité benn jour événement dama ko fàtte mu liggéey na ba wàcc jot sama patron jox ma ay dàll na boo demee ba atu nangal ma kam maa ngi xoox boobu télécentre moo am bindal ma numéro pa bi may jox dàll yi kam ngi xoox boo wàccee sant bi mi ngi si garage bi boo wàccee taxawal woote ñu jël si la nga livrer dàll yi muy jouru korité ma dem kam Kambange xo livre daal yi ñëw jox sama patron xaalis ba mu boobu kos néew bëgg naa métier mi ma daan tëj ma may liggéey ba ma wàccee di ñi mu yëkkati mille francs jox ma mandat ma bëgg ko ma xam ne maa jàngi métier waaye rëccu ma si dara tey barki alxuraanul karim rëccu ma si dara si laa yor samay soxna samay doom di si sant yàlla suñu borom bu wér a wér a wér a wér a ndax taalalu ma loxo kenn na may ma kenn de moo ma fi defal sama soxla bu sama bët euh, te fu ma toll di ko wax bu sama bët xonkee bu raama mbaw te su ñaar yaay bokk ndey ak baay xool si man am am xool si man sama rek man damaa def xoolool dara lu ma bëgg mu def ko chaque tabaski moo may jëndal xar ba tabaski bi bii ñu egsee gu jëndal na ma xar ba yeewal ma te rek yàlla tax ak ma doon magam ak jëmmi Sëriñ Tuubaa kooku laa xam ne de bu bët bi xonkee mu xam ko ci man waaye kenn mënta taxu fi mbandoor ba mu daj laa a wax ku dul kenn kooku sël sël sël ndax day def ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba paa ngis tal ma koy ñaanal booy boobu aw fanam yàlla na gudd booy boobu lu mu yóotu yàlla na ko yomb booy boobu yàlla bu mu dajeeg lu mu ragal si barki alxuraanul karim barki Serigne Touba xaside Serigne Touba yi mu yaakaar yàlla na ko saa borom loolu. patron ba ma nekkaloon dañuy ne di liggéey di liggéey ba 2000 mu dem Espagne. bi mu demee Espagne ma ne si atelier ba fekk na gars yi ma fa njëkkoon a nekk ñooñu beroon na leen waaye man jotuma a dem ma togul woon ba mu demee 2000 ma ne si atelier ba ne si atelier ba mu jóge ka mu beroon muy aale laam mu woo ko ne ko damaa nga dellu si atelier ba nga nekk ak mbay mbay nan ma daan woowe nga nekk ak mbay xam nga kooku tamit ndeysaanam yàlla def mu ñëw nekkaat si atelier ba maa moom ñuy nekk di nekk di nekk ndeysaan moom tamit ba suñu borom weddi mu dem màggal ak Touba bay ñibbi si far def soog far yam fa ma nekk si atelier ba nekk si atelier ba ba ma fa nekkee tamit ma xam ne métier mi bënnagul te bu ma toogee faiblesse bi dana man di problème ma woo ko wax moom mu ne ma kat mën gaa dem toog ba am fa kiyaat ma ne ko waa bi ma ñëwaatee bi ma toogee tamit boobu métier mi des na ma dama tëngéej bi ma demaatee Tëngéej ma nekk si euh, grand bu ñuy wax àll mbaw ñu ngi nekkoon si booru mari bi si booru LONASE bu mag bi oto yi dem yeen ma nekk grand boobu nekk grand boobu nekk grand boobu ba xam ne wax dëgg yàlla war naa mën a demal sama bopp ma wax ak moom ma daal di ñëw dem ak sama bopp waaw loolu de xam naa jaar naa foofu waaye loo man man métier am na ku la ko dàqal foofu ndax xam-xam yi ñu dañu sutante waye li ma si jotta a neew man ah sa borom mi ngi ma si sutural ma ngi tedd ba luma bëgg fajal sama bop dina ko faj waaw lool mom amna mom ci man wax deug yalla neew ma kenn yalla ak yaw bu na ma de mom dina nakal yalla ak yaw kenn yow kok de dina sañ ka wax muy kenn seul lor wa metti won na ndax bi may do ak ci ma ngi won buntu ko ñoom Daga Ndiaye mosoon na fa nek ma maa juuf mi mbaru zeng la daan def wala mbaru sàkkat la doon sa amaguñu luñu bay tek waaye li naan jàpp rek su daggul dana dikk ba mu yendoo teng waaye ñu jàpp gëm ma jàpp gëm torop muy metti may gëm ba yàlla tey def ma mën a am keske bi ba teg ko fii ndax loo gis ci àdduna ndànk-ndànk la rek ndànk-ndànk la ba lépp xëy sotti ndax saa borom mi bind mi tey àdduna mi ngi ko bind ci juróom-ñaari fan bu waxoon kun mën na doon ci benn fan waaye loo gis dalay wan si saa borom dalay wan tegtal ak yoon rek waaw àdduna loo gis ndànk-ndànk la tànk deewoo wala màggatoo xëy na dara jombul doomu aadama bi jàpp rek te bàyyi la daal waaw man daal foofu laa teg samay mbir rak war na Serigne Touba nu ngoo liggéey liggéey ak jaamu yàlla ak lu ma am mu doy ma bu ma ko amee rek boo ko amee rek si àdduna bañ a xool lu keneen am yow li nga am na doy sa simple. bu ma sañoon place bi ma ne taliba jàkkaar route nationale bi su ma sañoon tey maire yi Ngagne Diop utal ma place de taliba teg ma fa. ndax ginnaaw yàlla ak yonente bi sama baay wàcc na sa sama ndey wàcc na te lépp lu ma mag sama bopp maa ko man kon bu ma sañoon ngeen joob utal ma place su diggu taliba teg ma foofu fii ma nekk dafa ruxe fii du sama place waaw man xam naa ne fii du sama place ma sañoon mu jàpp si loolu utal ma place sa taliba teg ma fa ma ñëw toog foofu ceene loolu bëgg naa monsieur le maire Ngeen Diop dégg ko defal ma lool te yàlla rek tax ak sëñ Babacar Si mi mu yaakaar waaw bëgg naa lool mu defal ma ko maa doon nit koo xam ne nag manuma wër nit di topp di wax manuma lool ak sama physique laaju loolu yaa xam li war si man rek nga def loolu dinaa wax nag sama doléance nga dégg ko defal ma ko rek te yàlla tax wàllu matériel jafe na ndax tey machine bi ñuy ñawee machine daal dafa am te nañ ko fi mu ne libaas nii fa la dem nii ñawi ji aw ma matériel boobu machine boobu am na xeetu daal yoo xam ne mool yi yoruma ko bu ma ko dama koy liggéey am na xeetu ndax euh, dàll ak séri mool bu ne bu koy liggéey fermé daam lu koy liggéey marakis daam lu koy liggéey leneen ak leneen daa lu koy liggéey waaye séri boobu amuma ko amuma ko ndax nit ñi fañ war a def duñ fa def dañuy gis fañ warut a def di fa def amoo fa yàlla amoo fa yonanti ba amoo fa ngërëm sëb sëriñ bu manti doon waaw te nit booba doonee borom kees sa borom jom mënoo topp si nit naan defal ma li defal ma li defal ma li mooy li ma la wax rek manqué naa ay matériel yu bari fii te bu ma sañoon sax casque bi damay ganta ngantam magasin bu gën a yaatu maag booy ñu teg ma toog ma indiwaat ñeneen ñu toog ñu teg ñu ibbi usine fii Bambilor industriel di liggéey dàll yi barke Sëñ Tuubaa bu luy xeetu dàll danañ ko liggéey bu boobaa waaye jum jumtukaay yi moo matul matewu ko ndax jàng naa ko lu ma 10 ans jàng naa ko si métier mi 10 ans def naa ko si ferme kon 10 ans ko ko nit dëju xam naa sa xam-xam war naa mën a gën a sori quoi waaye nag dafa am lu ko laaj loo xam ne matériel bi la bu fi nekkul da def ndànk-ndànk ba xëy na ba yàlla ñëw rek foofu ko teg daal man waaw façon daal yi may liggéey maa ngi liggéey ay carax dañuy liggéey euh, dañuy liggéey ay fermé dañuy liggéey ay fermé danañ liggéey maraakis bi danañ liggéey maraakisu der ah fu ñuy daal daal si kàttanu yàlla danañ ko liggéey waaw loolu am na ndax tey teer am ñoo xam ne yëre góor ak nañuy liggéey am na ñoo xam ne yére jigéen rek lañuy liggéey boo gisee sama liggéey daalu jigéen bariwu fi ndax soxna yi seeni bagage yaa ma gën a xam waaw moo tax sax seen liggéey dama koy daw ne moo tax si góor ñi laa gën a opté pour liggéey ak ñoom ndax ñoo gën a neex mën a dafal waaw waaye bu dee xeetu daal boo xam ne rek wax dëgg yàlla mën nañ kaa liggéey waaye bagage ba la ko war a liggéey moo fi nekkul mooy mool yi ma la wax rek mool bu nekk ak séréem ak ba mu mën a liggéey ba ay ay sabago ay ay ay jon yëpp dafa am ay moolam waaw yëpp dafa am ay moolam yoo xam ne moom la ko tubaab bi defar pour nga liggéey ko tubaab bi defar daal sax ya muy defar dafa ànd ak mool yi bu am am na façon mool bu nekk moom la yore pour liggéey si dàll boo ko amul doo a liggéey yenn xeetu dàll yi loolu nag si gàllankoor bi la ne ak machine boo xam ne war naa ko mën a teg fii heure bu ma ëlbatikoo ñaw samay machine ndax machine yooyu ñooy ñaw yii yëpp gros fil yi der yi yëpp ñoo ko ñëw ndax dàll yi yëpp nga gis lépp cuir la lépp der la waaw dafa am loo xam ne nag manqué nañ ko fii lu bari war na Sëriñ loolu dal amna fi tamit waaw loolu amna fi mom appel bi may def moy Moussa le maire mi nga xamne mom la fi yalla tek muy ne bamblor Bambilor war a jeunesse wara ma jappale en kabi na ñew jappale ñu te rek yalla tax te na ñoo genn man de sama bop la wax mo na genn tay di ñaan wala ma genn taxaw fe tali bi yor ak keul di majal, wa jomb na ko sama dere nungu ko te yarawuñ ma lolu xamuma lolu xamuluma xam dor war ci li kan Ndiagne Diop ak Thierno Amadou mi nga xam ne mooy xalifa Bambilor mu ñëw jàppale ñu tey jàppale ma tey yàlla tax waaw bëgg naa moom tey mu dégg la mu ñëw jàppale ma tey yàlla tax ngir yàlla ak yonent bi ak barke baayam nañ ñëw jàpp si buñ si jàppee rek xëy na dana baax affaire bi rafet na kontaan na wax dëgg yàlla sama xol sax dafa fees mënatuma wax sax billaahi wallaahi taala di ñaan sama yàlla jë wàcc ak jeudi bi passé yàlla na xippee àjjana firdawsi lépp moom lépp lépp lépp lépp lépp moo ma moo ma teg si yoon ba ma egg si fii barki Sëñ Bamba waaw moo tette ba ma egg si fii ngom yàlla na xippee àjjana firdaws yàlla na suuf sedd si kawam si barki alxuraanul karim ñii dañuy baaj ba doon li nu doon di góorgóorlooj mooy jàmbaare góor gar day ñeme jàng jëm njaay jaate njaay bu ko bëtam xañul fitam du ko ko xañ doole jaar bri loole waaw jàmbaar bàyyi Sidi Lamine Abdourahman Kunta kii yaranduloo géej gi muy randu mu ni dëkk leen jàmbaar la